During school holidays in Gambia, most children in the Greater Banjul area spend their time in finding friends, engaging themselves in activities that school hours do not permit them. Visiting friends, playing football, and even hunting for bush rat in the local dialect called dicks is few of the activities they find extremely exciting. At the Manisila basketball court, these boys explain to us how they were able to capture a bush rat and how they process it. ko ci si os bi so legi dirimo bi so duggé rek momu laal bi rek dafa teju wa dafa iya yene su la ne nga sété ko si gudi yene iya barki dem si gudi la ko sét ñu japa way te mom si suba len ko té ñu japa ko na den ko so bugun nga mu de bugun mustafa ñu jël mbor bi def ko fa pour mu am lu mo léka ci den ko lé léka ba bare garab la wala yene iya mu ne den ko lé japa ñu mëna ko dem jaay si l'hôpital bi des comme dix bi num magé ak num ndawé am na week suñu teewoon 300 lañ ko jaayoon si biir week bi ñun every day dañoo teg te dañ lee jaafa nga yéene su nekkee da nga ko war a lekka boobu da nga koo génne ñu dugal ko si saaku ñu xoola jël saaku bi dóor ko wala suma boy bi alpha wala goli gars yi ko nga ne dafa xum ñu mën a koo reen li mu yomba te soo ñu xar ko fees dafa am différent différent yéene mun nañ koo jël ñu tooyal ko ñu teg ko si safar boo dafa lekk nga xam ne dañ koo xoos a risa wala benn bi mën nañ koo fees comme ni ñu lay feesee xaar suma ay son leen xam nga suñ tey bi si dañ lay invité gars yi ñoo ñoo gars teg ñu dina ñama ñama tënk si teg bi ay fiaf fiaf dala si sa comme du bëri sax comme luy daw si dëkk bi du bëri waaye su nekkee da nga koo jaay comme ñun ñett ñu ko ñu ko téere gars yi dem duñ alaat kenn ah yaay kaaba moo ñu leen may boo ñu leen abal fourneau alaaji kele alaaji ba moom moo leen andi sujeer bi What are the most enjoyable parts of the animal? Young Lamin Call explains. a su ko frayé ba pare yéen a teg ko yéen a jël sauce bi na mariné ko lu ma jugee woon nii ko na boole ko yéen a frayé ko soo paree yéen a jël lii soo a jël jaasi yéen dogat dogat lii yëpp yéen a sotti ko si bool na kibeer ko yéen na xorom ko na mu taatoo. so right here at the Manisla basketball court uh, you saw for yourself what these boys during their leisure times especially during uh, when the school is not in Most of these boys come here just to have fun. They play around, they joke, they play football, they tease each other. And this is one of the key things that really keeps their day busy. I am Ivan Wilson, reporting for Sahel Network TV, Banjul.